Eh, nu mu tuddati Tida man la Adamo yow tey dinaa def live na nga suivre live bu baax parce que yéen moom dangeen ngeen bëgg a yeb nit ñi quoi après nga leeral affaire yi man dinaa wax ak Babali. ça va Adamo ça va ça man la Tida nga ne tey def live pour leeral affaire yi affaire yi kay jarul leeral leer na ba noppi nit ñi dégg nañ ko. man kay li ma bëgg mooy ba Bambaye ci boppam mu ñëw reconnaître doomam defaral doomam ay ay këyit loolu léegi laa bëgg bu reconnaître doomam soxla ma daraam bëgguma loo xam ne takk na ci moom moom sa bëggut mu ko gisee àdduna mais nañoo rek reconnaître doomam loolu nga laa soxla. salaamaaleykum na nga def Adama yaa ngi si jàmm bu baax man la yaayu Tuuda dafa liir léegi sa message wan ma ko bu dee da ngay leeral nag leeralal. waaye bu subaa man mi di yaayu tiire di ndeyu mbilli gi jur sama doom jur ko fa ma ko war a juree mu teg ko lii mu ko teg nii ba pare di ko dawloo ni safa ak maro wër di yàq deram man dinaa génn jàkkaarloog Sénégal wax lu leer naa ñu lu mel ni mi ji waaw ah, kay yow sa doom ji day taxawaalu sa doom ji di Khadija nekkul ne ba maamaale rek la seqal ñi mu seqal ñoo bari ci boppam yaa ngi dégg Khadija mi yow meer yow soo amee sa doom danga koy yar nga teg ko fu leer yaa ngi dégg bu indee dara ci kër gi nga laaj ko foo ko jëlee yaa ngi dégg Khadija mi ànd na ak yaayu Bambali ak Bambali sekk ñu dem test DNA yaa ngi dégg ñu ne ko Bambali jurul doom ji léegi nag moom muy wër kuy papay doom ji te nii muy waxee ak yow nii moom dafa ëmbaat nii muy waxee ak yow nii dafa ëmbaat léegi nag mu bëgg a génn takkal doom ji ne bàmbaali su ko defee bi mu juraan ñu ne bàmbaali nangam sa doom ñi ko ñi jaar ci moom moo bëri ñi jaar sa kaw doom moom moo bëri sama yaay ñi jaar sa kaw doom ñoo bëri yaa ngi dégg man information yi la maa la ko gën a xam foofu te mën naa laa tuddal ay tur. man man Adama man de man maay ak yow gis nga li ngay te barke xaadimul xaddim mi ma yaakaar yow yàlla na la sama àq dal parce que nag yow sa wax sax métti ma parce que yow yàq yàq nga toog di yàq dere doomu jàmbur yi yow lii mooy sa métier loolu moo nekk ci sa dere waaye naa la xamal ñaar man ndaw laa sant te nga ne nag yow man maa la dese yow teeral nga di nga tàkk te doo xam lu lay taal gis nga tiide bi man maa ko juuf sama doom la yaa ngi may dégg bu dee boo nee dafa ëmb dangay ngay duul ëmbul yow ngay duurkat doomu raam bi nga doon yoo xam ne man faalew ma la lu leer nañ laa am ci lu ma lay wax maa ngi toog fii nag yëmbal di ko tàggasante te bu subaa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinaa jàkkaarloog Sénégal yëpp wax ñu dégg ma doomu si sa doom ji cagala yow ñoom ay mas Dakar live ay ay ay kii ay mbay ku ca ay paama jee ñeen ñoo du ma tudd seen tur ndax samay xarit lan ñëpp ko kat ñëpp nga bëgg a taxal bambaali di wër kii test di ànd bi waxoo ci ëmb bi mu ëmb nii waxoo ci maire maa la gën a xam li xew dakaar xam sa doom li muy def nekkal nit Adama ngay waxal dofoo man lu ma la wax am na maa leen gën man xam naa leen bu baax. Adama tiida moo wax waaye man waxuloo ma tiida ndax yàlla dafa wax. ndax ku xool Bébé a xam ni Bambali mooy baayam waaye te yow dooma raam nga ndax dooma raam a tax nga gis dëgg-dëgg tekki sa tànk yow boo ne Tijja dafa ëmb da ngay duur waxoo dëgg yow doomu cott ndayam bi nga doon yow nee naa la ci man nga teerale ci man yaay Tijja bi nga xam te ni innocente la doxul waxul demul dikk ci moom nga teerale déggoo ma de yow imbécile bu bon bi nga doon da ngay maire li may wax xam naa ko maire man ngay waxal de man maa maîtriser Dakar toog fii xam lépp ci Almadies sa booy sa doom ji di man di def lu ko neex ñu bëri tëddee ko dégg nga ñi ma la limal danoo tuuti de mën naa laa limal ñeneen mais samay xarit la du ma leen tudd yow xanaa xamoo aadama man du ma fen sa doom ji ànd na ak yaayu bambali dem defi test DNA DNA xamu nu mu tudd ñu ne doom ji bambali sekk juru ko léegi nag muy wër moom kan mooy jur doomam nii may waxee yow sa doom dafa amul lu tax waxoo ko nii may waxee yow nii nii bu nekk leen ay nit ngeen bàyyi seet dof doflu bi baax na ba guddi Adama déggoo ma de gis nga li ngay wax nii man feregew ma ba ñàkk ba yow nawloo ma la man duma ma say vocal du ma du ma du ma déglu say wax parce que yow doo nit waaye dinaa la xamal ñaar xamalaat la ñaar gis nga sama doom ji aha kay caga yi ak ñoo bëri ci dëkk bi dëkk bi Sénégal fii ay caga du nga fi nekk bu la neexee da nga taxaw ni moom caga la waaye ndeyam du caga amul mbokk caga kon sama doom ji ca kaw ca kanam ci lu baax bii ko téeméeri góor tëddee déggoo de bii boo na ko ko sukk jur kattal sa ndey fële yow mi gis dëgg nga dëgg ci sa taat ngay duul moom dafa a duul aadama kuy wër ku duul a duul na ba xam nga gisaat doom jurkatu xaraamata ay bi nga doon sa lëfal nday saa yoo yeewoo yow yaay dooma raam du ma du yow dooma raam doon du ci génn di ko wax parce que yow bàyyi woo Macky Sall bàyyi woo ministre yi bàyyi woo sëriñ bàyyi woo ñu jàng ñi bàyyi woo kenn yow nit ñi baax ñu nekk Sénégal ñëpp woo kenn yow ku ne ngay xas yow ba woo sa ndey ba woo sa baay yow ba woo ba woo sëriñ si ba woo nit ñu baax ñi ba woo kenn kon nag bu la tiida ñi nga xam ne benn sagaru ñi dong la di dox ci kaw àdduna yow xam nga ni war nga war ngaa mën a taxaw di wax ci moom la ñaaw ndax ku bawul sa ndey bawul sa baay ba woo sëriñ ba woo kenn doo bàyyi xale bu nga xamante ni xamul dara xëy na nattu àdduna rek moo ko dal nga profitoo ci di duur ñu nekk ci sa ginnaaw di la poussé nga fexe ba am numéro am vocal ko di am looy wax sa dëjëw ndey saa yoo yeewoo man naa la ko wax man yaay tiida alamo bu ba saa yoo yeewoo ba teg sa tànk rek xamal ni sa cottu ndey nga ko teg wax loolu saa yoo xam nga ni sa dëjëw nday ngay lekk yow Adama. ñemewuleen dëgg ñemewoo dëgg sa doom ñi ko katt ñëpp mën naa la ko limal benn par benn ëmb bu bees bi mu ëmb nii doo ci wax beneen bi ci tegu mooy doo wax ci test DNA bi nga xam ne nii ànd na ko mu def ko ak yaayu bambali ak bambali sec da ngeen yaakaar ne dossier bi li ci nekk xaw ma ko yéen da yaakaar ne dof ngeen di waxal yow toogal di xaar ba guddi rek man du la tontooti du ma waxaat ak yow. li tax mu lay jox téléphone bi ngay wax moo ko xam xam na ni tax mu lay mu lay wax loo di la poussé parce que ku jaaxle sa yaay ngay ngay pousse. Adama yow yaa mën a duul te rafet duul yow yaa mën yow yaa jongama ay duul yow yow nekk te duulkat original. yaay bàmbaali may ma yaay bàmbaali man maa dem ba këram te lan ma wax bu subaa dinaa toog ci télé bi wax ko déggoo ma de gis nga yaay bàmbaali lan ma wax dinaa toog ci télé bi wax ko su boobaa dina xam ne yow duulkat nga yow yaa mën a duul te mën a fen mu naan kest bi ànd nga ak bàmbaali ak yaay bàmbaali dem defi ko say duul dëng na torop duul day jub yow da nga doon yooru waaye yàpp nga aadamaw heure boo yeewoo bay boros xamal ni sa kooy baay ngay borosoo conteste man dinaa génn ñëw toog. sama kàddu gu mujj nag laa lay jox yow Adama boobu man jéeg bi nga xam ne sëy na ñaar fukki at ak ñaar mësta tas mësta mooy wax ak yow man jéeg bi nga xam ne maa jur sama doom bi yar ko ba mu màgg musumaa wax mu tontu ma maay wax ak yow jikko nag yàllaa koy def ci doomu aadama jikko bu ko bu ko yàlla moo ñaari man bëgg na Adama na ko million sénégalais yëpp kat sama doom la maa ko jur sa lëfal nday saa yoo yeewoo déggoo ma de bi mooy sama kàddu gu mujj nag maanaam yow sa digg data nday saa yoo yow aada boobu nee waaw booy duul da ngay duul duul yi jub say wax dëgg bi nga xam ne sëy na ñaar fukki at ak ñaar jur doom boo xam ne ni day day cagala di mandi bëgg lu yomb parce que xaalis bi mu lay jox a tax doo leen wax seen waajur yi doo leen wax seen doom yi dëgg parce que day bëgg sama naturel du liggéey bëgg a siiw ah kenn du ko siiw kenn du ko forcé du siiw du nekkul ne da ngay joxe sa lëf pour siiw nekkul ne dangay ngay joxe sa lëf pour am sa fa naturel nekkul ne da ngay joxe sa lëf pour euh, am iPhone nekkul ne da ngay joxe joxe sa data pour nit ñi ràññee la wala nga am loo jox sa yaay wala lu muy lekk kii caga ñi ko kat bari nan test bi waxoo ci ëmb bu bees bi waxoo ci bàyyi ba guddi ma leeral lépp mën na yimbi liggi nga nekk fi naan ay waaw dinaa génne ci tale ku ci def sa njaaxum daal jige jël sa ko muur ko mel ne kañ a gu jóge Mali toog naan waa sama doom dafa baax cagatoom bi nangam nangam mus sa cagatu yaayam nangam li nekk ci dossier bi lépp xam nañ ko do man mii du ma la vocale te guddi jotul merci beaucoup. ah Maodo da nga koy gën a Fatick ñaar nag dinaa la ko waxal gis sa message yi xam nga ñi ngay woo ñuy tiit man bokkuma ci man jéeg bi nga xam ne sëy na ñaar fukki at ak ñett te mësta tas mësta mësta yanu na bal fay tiire mu ngi nii toog sama kër maa ko mu ngi fii toog maa ko kanam ginnaaw ko xam nga xeex bi dama ñëw déggoo ma dama ne woon duma ci dugg ndax man bambaal dama koo bàyyi ak yàlla suñu borom ndax sama sët bi mu jur ba pare lànk ni juru ko dama koo bàyyi yàlla suñu borom sama doom ba muy ñëw di def di def euh, kii bi sax man yëguma ko waaye nag comme yow eh, yee yow yaay yow yaay yow yaay pëlipa nga jeegu ñay yow yow yaay solal fu nekk mbubu avocat ci réew mii Sénégal fii taxaw di wax lu ne bàyyi woo président bàyyi woo sëriñ si bàyyi woo kilifa yi bàyyi woo sa ndey bàyyi woo sa baay bàyyi woo kenn kon sagaru nit bii ma ta wax dinaa la xamal ñaar neen li ma la wax rek na ko junni sénégalais tëdde waaye sama doom la te kenn gënu ko ndey kenn gënu ko baay doomaraam bi nga doon yow bi nga xam ne yàlla dalaa natt nattoowu la lu taxaw di wax nit ñi lu ñaaw nattoowu la lu dul taxaw di saaga nit ñi nattoowu la lu dul taxaw di toroxal nit ñi waaye di nga xam ne mënoo maa toroxal yow yàlla na sa kooy yi wadd ci mbedd xaw ma foo mën ni nekk mais yàlla na nga dox ba ci yàgg sa dambali ne ba tukki suuf wadd maa moom rek waaw kay foofu nga laal nag foofu neex na ma nit ku bon kee nit ku nit nit nit nit ku tekkiwul dara nitu safara gi nit ki yàlla lakk muy dox di dund foofu nag moom dama fay dugg ak yow fi nga dugg noonu ne man daf ma jox xaalis di ma di ma fayal ndox di ma fayal courant duur nga ba def ko ci bool jël sa fursa di ko tibb di ko lekk man ku ma xam-xam ne liggéey la ma xamee déggoo ma de fii de musumaa fayal ndox musumaa fayal courant musumaa yoral dépense déggoo ma de tii de mii Sénégal yëpp man ñi ma dëkkal ak ñëpp xam nañ ñi man tii de mii fukki dërëm moom du dul ko ci samay loxo lu ma am man maa amal sama bopp ak bàyyam bële dégg boo ma de yow doo ma ràmbu toog sa cottu nday ba li may wax di sa sos yaa ngi nii li tax ma nawloo ma la parce que lii ngay wax nii dafa lu ci dëgg ay duul la man say duul dama koo jël pakete ko ba mu jekk ma teg ko ne la parce que yow duul da nga yàqatu der nga waaye sa bés dana ñëw yow sa bés dana ñëw dëgg Sénégal njaay jii ba ñëpp teg ci seen bët man naa la wax lii soo ñëwee daf may fayal ndox di ma fayal courant duur nga fii da jox ma ma lekk contrôlé man maa yëkkati sama xaalis di ko li may wax nii ñi ma xam xam nañ ci dara li may wax nii ñi ma nekkal xam nañ ci dara kon li nga wax da ngay duul tegoo ko fenn Adamaw maanaam ci gàttal sa dëgg la fal nday saa yoo yeewoo ok léegi loolu mooy vocalu maire bi léegi dana ñëw ci vocalu gaayen bi nga xamante si nii beneen garant bi la charna naka la la jaraaf Jaraaf Farmaréne euh, si kaw Tida bi laa la bëgg a laa la bëgg a expliquer muy wax dara dara du si dëgg dara du si dëgg man staff Bamba Malick Seck laa nekk Bamba Malick maa ngi Sinabal te Tida xam naa ko bu baax. Mixa fi la doon fréquenté di jaay boppam xam naa ko bu baax di naan volé di saa naan naan naan sangara xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax ak dañ antam soirée bambale muy dem. xam naa ko bu baax a baax a baax soo ko woowee nga laaj xam xam nga jaraaf jaraaf seen xam na ma day wax xam na ma. saa ngi comprendre ti daal lu muy wax du dara dara du ci dëgg dara dara dara du ci dëgg bu ngeen nga dugal ma ci live fi après non yow du mën a dugal léegi dañuy déglu vocalu Mbaye Kouthia Mbaye Kouthia fan la nekkoon fii am na lu ma wax de. ñam nga ñam nga ci boy bi de. waaw noonu la yow nee naa ko mbay moom gën la ñëpp la kat te du nee ko mbay moom mën naa kat ñu bari eh, ah baana kon boy bi kon moom day tuumaal nit ñi rek kon moom caga ah, ah, baax na ok. Ah, xaaral ci kanam yow kay katt nga ko xam nga kii mooy Mbaye Kouthia moom moo mujj katt booy bi Mbaye Kouthia mi ngeen di gis muy def émission mi ngi nii moom moo ko mu a katt moom mujj a katt Tina Mbaye dégg ngeen ko Mbaye Kouthia ngi nii moo ko mujj a katt Mbaye Kouthia dégg ngeen ko damaa ba dama koo jël. Mbaye ko moom ak am na Mbaye Kouthia jox numéro am. Mbaye Kouthia ma jox numéro booy bi moo ko mujj a katt Mbaye Kouthia ko mujj a katt ñam nga ci ñam nga ci booy bi de. waaw noonu la yow. mbay Koutia moo ko mujj a kat la ñëpp la kat. mbay Koutia moo ko mujj kat ñëpp ko kat. xanaa xamoo am na ñoo xam ne sama nit lan man sama nit lan moo tax leen sama ay xarit lan moo tax man tudduma leen mais kon dinaa leen tegal liste ñi ko kat ñëpp kii yaay ji. moo ko bàyyi ci li mu nekkee man yaay ji saaga yi ma saaga ak li ma wax loolu amul problème loolu yàgg naa koo dégg mais man damay bëgg chaque jour rek ñoom ñuy dégg dëgg ci seen doom yi man du ma bay baylal doom xam nga lan mooy bay baylal sa doom sa doom ñëw indi iPhone bu bees ah wala sama naturel wala yére bu bees wala mu jox la xaalis bu bëri doo ko laaj fan la ko jëlee liggéeyul amul liggéey kenn engagé wu ko jaayul deful dara mu yor xaalis ne la yaay jàppal ci lii xanaa di nga ko laaj foo ko jëlee xanaa di nga ko laaj fan nga ko jëlee. xanaa di nga laaj sa doom ji fan nga jëlee xaalis bii kat moo la ko jox dafa am loo xamante ni losigul xale bu jigéen bi ñépp ko kat mi ngi nii Xadija bi ñépp a ko kat billaahi wallaahi wataalaahi am na loo xamante si nii bu ma ko rusul woon billaahi dinaa la tuddal tur yoo xamante nii day weesu Pama Dieng day weesu Mbay Kocca day weesu Maas billaahi tuddal la ñu siiw ñoo xam ne katt nañ ko billaahi mais ñooñu sama ay xarit lan bu ma leen tuddee rek dina ma woo sama ay nit lan sama ay xarit lan ñëpp ko kat ñëpp xam nga la la nekkoo bi dina euh, fële euh, almadi mandi naan ci mbedd almadi yi day taxawal yaay jaa ngi nii yaay ji waxul lépp de nee na bu subaa dina génn ci tale yi leeralaat